li ci yéene kay. yegg si nañ ci fas yéene cee dalal Seydina Omar Ba Seydina ñu lay nuyu. ñu lay fay Abdoulaye. lu ñu mun a door ci yéene kay Walf Quotidien. waaw Walf Quotidien dafa xëyee ko ci nguur gi jëm ci presse bi lee Moussa Bocar Thiam Moussa Bocar Thiam dafa lànk ne euh, du jox nguuru Walfadjri juróom fukki millions yi nga xam moom ko desel maanaam Moussa Bocar Thiam daal yéenam ak bëgg-bëgg mooy fexe daal ba euh, xoj Walfadjri ba dootul nooy yéene moo xëy fësal yi euh, tax kii di Maître Cheikh Niass yëkk ay kàddam kon di sàkku ci xam ne di kilifaam yi ñu wax ak

élection yi ki nga xam moo di njiital CDC wax euh, mm-hmm. kon ndem euh, mm-hmm. euh, Ousmane Sonko turam nekkul ci fiche électorale bi kon du yoon ñu koy nangu li nga xam di caution am noonu la ko yéen gi ressource ak xëy Fassal Abdoulaye yéen kaay gi di l'info ne lu jëm ci candidature Ousmane Sonko man astafra lu jëm ci mm-hmm. élection présidentielle yi di ñëw grand rush bi nga xam ne meekoo nañ ko ci DGE mbir yi demeewul noonu fële ci CDC ndaxtu waxtu wi ñu bari ci candidat yi e euh, de parrainage mm-hmm. waaye fu mu toll nii ay benn benn ngay gis fële ci ba neexul waaye ñaari téeméer ak ñetti candidat yi nga xamul joon wax ay candidat fantaisiste la ñu noonu la ko yéen a di leen euh, foo xëy fesali Abdoulaye yoor yoor bi yéen a kaay gii di yoor yoor xëy dellusiwaat ba tey ci lu jëm ci procédure bi euh, mu soxor rabat d'arrêt bi nga xam ne avocat Ousmane Sonko koy déposé nañ ko euh, ñoom nag bind nañu euh, Siré Alili ngir mu jàppale mm-hmm. a bokk la euh, mm-hmm. a kaay a nga war a matal lépp kon mu ci yéen gii di la soleil Abdoulaye le gii di la mandat dafa xëyee dellusiwaat ba tey ci caution Ousmane Sonko bi nga xam ne ni Euh, euh, waa caisse de dépôt et de consignation dañ ko mu jee delloo yéen kaay gi moo xëy fesal lu ne mel budget bi mu soxal koppar yi nga xam état bu Sénégal war na koy liggéey ci at mi am na ci téeméer ak téeméeri junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk eh, ci ay agent yoo xam daanaka weer wu dee mm-hmm. daañu ñu coûté ñun askan wi lu ci tolloog téeméer ak ñeenti milliards ak lu suñu koppar ñooñu mm-hmm. la ko yéen kaay gii de la mandat xëy fesal Abdoulaye yéen kaay geneen le verdict news ne bu Sénégal woote nañ ko eh, nañ jàpp ne kon mu ngi toll léegi mm-hmm. ci juróom-ñaari junni ci ay ay milliards nu ñu la ko yéen kaay gii di la verdi xëy fësale yéen kaay gi ne marathon budgétaire bi jeex na waaye Moustapha Baye muy opposition bi di député yi nga xam ne fële ci nguur gi ñoom ñëpp daal ñu ngi ko doon ovationné maanaam ñu ngi ko doon tàccu hmm. rafetlu nañ nag liggéey bi nga xam daanaka def na ko euh, ci diirub ñetti weer yi nga xam daanaka doon nañu amal li nga xam moo di session budgétaire bi noonu la ko yéen kaay gii di laas xëy fësale yéen kaay bi di l'évidence na moom Mamadou Moussa maanaam hémicycle bu doon ne jigéen la hmm. mu naax ne ne hémicycle bi daanaka finalement dañoo mujjee daanu ci ko dañoo mujjee euh, hmm. dañ mu mujjee dal jox bopp jox bopp euh, ndax démb séduire na leen noonu la ko yéen kaay gi di l'évidence xëy fësale euh, budget ministère des finances nag mu ngi toll ci ñeenti téeméeri milliards yu teg juróom fukk ak ñett ci ay milliards yu teg ay millions yu bari noonu la ko yéen kaay gi di l'évidence xëy fësale le quotidien le quotidien yéen kaay ne lu bu euh, budget maanaam subvention yi nga xam nguur Sénégal mu ngi koy def mm-hmm. toll ci juróom benn téeméer ak ñaar milliards ci suñu téeméeri milliards dugal nañ ko ci hectares agricoles yi fukki milliards ak juróom-ñett ñu def ko ci njëgu terre bi. 9 mhm. virgule ay quelques milliards ñu def ko ci ñu Dakar dem dikk. Euh, fukki milliards ak juróom-ñett ak yeneen. Mhm. lépp daal bu ñu ko xaymaa mu ngi toll ci juróom-benn téeméer ak ñaari milliards suñu koppar noonu la ko yéen a kaay gii di la côté ña xëy. fii si la loolu la xëy dellu si waat mu jëm ci daal mu soxal gestion 2024 Euh, budget bi daal daanaka woote nañ ko yéen kaay gi critique la xëy fësal ma ngoog euh, Sud Quotidien ah, ci jamono ji la Sud Quotidien ma ngay fësal ab euh, jeex maanaam jaaxle gi mu am jëmale ko ci campagne jaay ak ngënum gerte yi gilee mm-hmm. donte sax tàmbali nañ ko ni ki démb waaye nañ jàpp ne mbir yi dafay ragal Euh, ak lajjite am ci ndax ñi nga xam ñoo di béykat nee ñoom seen gerte moom duñu ko jaay ci 280 francs mhm. jaral na leen jël seen gerte kon yóbbu ko fële ci euh, noonu la ko yéen a kaay gii di Sud Quotidien xëy fisale euh, turbine lam ñu dégtal yéen a kaay gii di la turbine moom dafa xëyee samplaaj bëgg xam mhm. coow li nga xam moo mu soxal coronavirus bi ak ñi nga xam ne lañu jàpp ne dañ ci am ak luur gu ñu ci def fan lañ ci toll maanaam ñoo ñuy duppee ay corona dealer euh, fan lañu toll ak ñoom euh, maanaam euh, na match yoo xam war na seen koy nemee ko mhm. a fës mooy match bi nga xam war naa dox ci diggante mhm. ay mag lañoo ay mbër lañ yoo xam daanaka ay mag lañu te fu mu toll nii kenn ku ne yaa ngi jox yaa ngi jox chance mbër mbër yu ndaw yi yéen kaay gi ne ñoom ñi nag bu fekkente ne bëgg ñoo des ci cercle VIP yi faw ñu woon xale ñu mhm. ndax ku ci mel ni Bombardier war ku ci mel ni Eumeu Sène naa bëri ak ki nga xam ne moo di Sa Thiès Gris Bordeaux di laal ak ki nga xam ne ni moom moo di Ama Baldé mhm. euh, maanaam ay mag la yuy bëri ak ay xale des ci cercle VIP ñu mhm. leen mënee noonu la ko yéen kaay gi sunu lamb xëy fi seen mënin daal ndax euh, la woon fa woon wala woon ni na